jom jom jom lu diis ah waajal leen ko dimanche incha allah arène adresse Sokone Abdou Wahal Diofior production suñu grand moo xewle waaw ñuy woo ñëpp nag fu waay nekk animation bi day neex bërëb bi day neex lëf day neex acca ba duusaane ku fa dëgg néew mas Abdou Wahal moo xewle tàkk jaww ji dem bëri ji